arrivage bu bees la. li ci bëgg rek defal te fii ci Ndiaye Jesner. yooyu nag nii ay 3 mètres ay 4 ba 5 ba 6. lii mooy Jesner Supermanium Gold bi. laser 1 mètre 60. sa desin yi rafet na trop. reew na na ay couleur yëpp ay couleur góor. góor mant la góor ak jigéen ñi maabo sax. unisex la góor ak jigéen ñëpp a koy sool. campagne foncière mo nek ni bâché riche ak bâché noblesse tam am nañ ko lii mooy noblesse du doy waar a ngeen nii tamit moy jesner wifi bi moma bi la wàcc côté gi mom lañ ci wadjal ni am na couleur yëpp ay góor ak jigéen yëpp côté jigéen itam am na ay brode pirha ay brode la xaya yëpp ñoo nekk nii awangum rabanguma korsalan badide te mbirna goyatel final individuel ordinateur 120 kilo sénégal ak 120 kilo nigeria ki mo daan ordinateur ci premier jour bi kii moo daanoon ordinateur ci premier tour te ñu dajewaat final par final individuel ordinateur moo nu woon gannaaw yàlla sinik daw na jël tànk ba attention takk na ko ordinateur ordinate ordinateur daan na ko ordinateur machine ne allahu akbar way da ngi daag la ordi way machine ne <laughs> ko ordinateur o yàlla si mbër docteur Viressa mu nga yëngal Niger jëlal waay lii neex na attention mbëru Paul bu ordi mbëru Momo bu ordi mbëru géej ngom faw mbëru Arfan Fay borom koba ngoy waaw ordinateur a ngi noonu de jël na final ba